mayu ma mu nekk ci coono yooyu ma maa ngi toog ki ko ko teg quelque soit lu ma mën soxla ak quelque soit lu nga xam ni moom la ma mën a jàppale mu ne ko sëñ bi waxtaan bi mën na fi am giñ naa ko ci àjjuma ji ci sunu boroom ni noonu laa ko wax boobu la toog gëj a am ki fekkee waxtaan boobu di sunu xarit ñu ñaar bi mu ko gëjee sama kër matul weer dafa ni ma xam naa politiciens yu bare mais ku la gën a gore gisuma ko ci Sénégal ku la gën a gore gisuma ko ci Sénégal ndaxte ki ñëw di la wër ki ñëw di la wër ñu bare wër nañ ko tooguñu ak moom moom mu toog ak yow nga xalaat sa conscience bañ xalaat sa compagnonnage ak nit ca lan ko teg bañ kon xam nga loolu buñ koy def c'est pour que Sénégalais yi xam ni nos rapports avec l'argent sont des rapports sains parce que danoo organiser suñu dund organiser suñu bakkan de sorte que lu ñu jot day noonu lu nu am doy nañu lu nu am mën nañ ci suturlu loolu boo ko amee tu es à l'abri mooy tax dara du fees sa bët dara du fëq sa bët mooy tax yépp kenn du la mën a këf ci lenn te lii may wax ni wax naa ko ay tubaab ma ni leen sénégalais yu bees yi ngeen am ak africain yu bees yi am danoo doon ñi nga xam ni dafa am une fierté qui les habite parce que bu fekkee xam-xam école yi gën mak mag yi ngeen génni fa lañu génnee doon fa major ci seeni kanam kon xam-xam mënu leen ñu ko jaay bu fekkee dignité le. yit la amoon mënatul am

ndaxte metti woon na jafe woon na siège bi ngeen di tok gis ngeen nele ci ginnaw vitre yële toj ak lak lak yi tambali li ci bir jamono bi ñuy nekkee ci combat bi la goudi lañ fi ñew attaquer ko pour brûler le siège

waruñu ko bayyi dafa war gis songé mën leen situation bi toll na fi nga xam ni bu leen ci a sonnal dëkk bi liy gën a yëngal man en tant que militaire ñu may attaqué ma parce que amul ci sama kanam ak

do responsable parti do responsable dara lenn rek tax lay ci jóg salir day bax ak yow ak sénégalais yi nga xamni sék ngeen waxante dëgg nga ñëw tok leeral wal ni ñuy wax dara amu ci dara dara amu ci te erreur manifeste bi waajoo bi def té yeen ñëpp aussi ngeen mën ko vérifier dafa bi yalla bi Ousmane Sonko demuma ko prison yeen ñep vous avez vu ma publication bi ma prison genn wax liñ fa et mieux rencontre bobu 20 minutes la wol normalement jour vous duré na 45 minutes té kenn bëggul won dem relation la mos am ak pour wax ni amul xaar ma yàlla boog man bu nekk ci sama boor et lépp li nga xam ni mën naa ko jàppale nit jàppale naa ko ko lépp li nga xam ni mën nga ko taxawu nit cib coono cib xalaat cib xel def naa ko bi mu demee sax bay def stratégie pour mën a dugal liste yu bare bëgg parrainage député bi may yabalé ma ngi leen di nuyu au passage le ministre Birame Souley Diop yabal ma l'honorable député Abbas Fall ak l'honorable député Ayib Daffé ñu fekk ma sama kër à 21h. ñu président Ousmane moo Yoni dafa bëgg député bi nekk ci sa parti nga jox ko ko pour mu mën parrainer benn ci

et dina ko ni ko heure bo len yexé ci bëgg comme signature na len ko defal et wax président Ousmane que ni lu mu jarul sax ngeen yabal délégation lu nekk sama loxo moko mom lolu amul ma parce que nit duñ la tek choono te nit ñi doon sa Sénégal. mi ngi am ba tey des hommes d'honneur et des hommes de dignité mais politique tëddoo na ni nga xam ni ku nekk jàpp na ku nit àndal rek am na lu ci wut giiñ naa ko sunu borom ni sama ànd ak nit wutuma ci lenn lu dul njariñam sama ànd ak nit wutuma ci lenn lu dul njariñu Sénégal et c'est comme ça que j'ai toujours fonctionné loolu képp koo leen bëgg ci àdduna dem leen dem laaj ko wax lu rafet jëf lu rafet toogal nit bëgg xam loo xalaat ci moom déglu la fekk si la ca na ngay waxee déglu la bu baax a baax nga wax ba pare ma xam loo bëgg bu ko defee xam ni may taxawee bu fekkee ab noonu la noonu laa moso fonctionné te noonu laay kon na di fonctionné

mu rafet comme ni mu mos a doone parce que xam ngeen vraiment diggante bi ci yalla def te mom la mos japp mom la japp jàpp tey ñu jëm élection législative ci juróom ben weer yi il n'y a aucun contact sénégalais yu bari laaj ma mais lutax tax gisuñu la ci liggéey bi mën leen dina baax muñ leen rek day baax parce que mënuma len wax ni juroom ben wèr yi amul ben contact amul contact avec le président Ousmane Sonko amul contact avec le président Bassirou Diomaye aucun contact mais dama japp ni danoo japp et dama japp ni ci liguey Sénégal la ñu né donc un agenda mun na ko maye bonne élection législative des tentatives de contact ont existé et tentatives de contact ont abouti. on est un parti politique et au feu de Sénégal am nous